jëf mbokki MPROD TV yi mbokki jëmm ji ëpp na ñaari at maanaam ko génnal nga def émission mu ne ma duma wax ci média boo xoolee Coupe d'Afrique bi mu tàmbalee waxaloon naa ba sonn du wax mais tey dana ma dama gis élection yi jëm foo xamante ni su ma génnu teel a alerté am na ñoo xamante ni jug nañ ngir sacrifier Sénégal li wa tax tey sëriñ bi nangoo wax jëmm la nag joo xamante ni borom baatin la di xalifa baayam jëmm ji mooy sëriñ Abdou Khader al imam ñu fekk ko Touba ci dëkk bu sell bi tey ñu bëri bu ñu ko gisee ci écran bi ñi am xam-xam danañ bëgg ndax bëri na ñoo xamante ni moo leen jàngal lasaraar ba tey ñi ngi faj aajooy jaam ñi te pourtant mës a bëgg a génn ci écran sëriñ bi ñu bàyyi la nga nuyoo mbokki improd ñu soog a waxtaan ci élection yi parce que campagne bi dimanche lay tàmbali te ma am na candidature boo candidat boo xamante ni jërul muy déposé ndax du bokk du dem kookee tamit na ñoo xam kan la ginnaaw Ousmane ba bañ ko kale ñu bàyyi la nga nuyoo mbokki improd. auzu billahi minash shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi leen di nuyu yéen mbokki jullit yëpp di jiital ci nuyoo bi alxalifatul ham bi taarixatil muridiya a cheikh mouhamadul muntaxa ñu ko ñaanal suñ borom yàggal ko fi te may ko wér di nuyu mbooleem jullit yëpp ak kilifa diine yi ci réew mi ñëpp mm-hmm. uh, sëñ bi di kontaan ak di rafetlu ci jàkkaarloo ak yow yaakaar naa jàkkaarloo bi ki ko gën a yombal bokk na ci uh, sëñ Sayer bi ñëwee ne ko sëñ bi la ñu bëgg a waxtaanal danañu sëñ bi du feeñ ci xaaral ma sàkkuwaat ndigal bi yoon bi mu yëgloowee nañu sëñ bi nee na mën na génn wax ndax am na lu mu gis ci réew mi te loolee yaakaar naa jàmm la du jàmm lii tamit bokk na ci li gën a yokk tax nga war a génn leeral askan wi mais sëñ bi balaa may dugg ak yow fen dafa am xam-xam boo xamante ni dama koy dégg ci yow ne danga nga koo man muy da mën a seet dégg naa al seet da nga ciy wan nit ki ba mu jàpp ne seetu la jàkkaar lool li tamit bala maa dugg ak yow ci élection yi bëgg naa nga leeral ci ñu doo a wax ci Bassirou Diomaye fay ndax mën naa gagné senegal wala ndax day perte. jërëjëf sëriñ dégg li nga wax lu wér la xañ na lii sens bi yàlla yéen la ko may waaye yàggu nañ koo sàkku ay kilifa yu bari wax ko te génnuma waaye nag dama gis ne jamono ji toll na foo xam ne génn wax daa doon loo xam ne mënut ñàkk ndax ku ne mi ngi wax te ñi xamut dañ cee bari kon ñi xam buñ génnut wax ñooy lor nit ñi moo waral génn gi am yaakaar naa fu ne jaar ngeen fa suñ borom mi ngi koy doog a dogal tey li ma lay wax ci wàllum seet tamit loolu suñ borom dañu cee jagleel ndax am na ci loo xam ne sama gone yi ne ci daara ji sax romb nañ foofu ñenn ñi ma dégg ñiy wax ci wàllum seet gone yi ma jàngal romb nañ leen képp koo xamante ni yàlla dogal na la ne déggante nañ ci wàllum seet. nga jot ma. jot ma nag yombul. waaye am ndimbal mooy tax nga mën maa jot. waaye ku am ndimbal ba woo ma téléphone ba ñu déggante. da nga xam ne leer ak lëndëm bokkuñu. ndax lii ne ci ñun. lu leer naññ la. te wàllum seet képp kuñ ci la ba nga juddoo. ba waxtu wi nga ñuy wooyee. lépp lu xew ci yow ak la ci sa kanam te ñëwagut. lépp des na la ko mën a leeral ba mu leer naññ. lu ci aajowoo ñu wan ne la nii ak nii ak nii ngay doxee yoon woo boo ko doxee incha allahu rabbi li ci sa kanam léppay leer. leer incha allah. Euh, sëñ sant tamit ci li nga ñu nangul sa numéro parce que danga ne woon numéro bu ñu ko affiché mais maa la ñaan ne la dimbali ma ñu affiché ko parce que dafa bari ñu ne ci dëkk bi di ñaan ta mënuñoo ñaan kon borom xam-xam yu mel ne yéen suñu leen dalalee war nañ cee profité affiché seen numéro ngir nit ñi jariñu ci kon numéro bi defale noonu mooy numéro sëñ bi sëriñ bi dama gis ngay liggéey ci nopp lu garaaw loo xamante ni li yaakaar na yaakaar naa bokk na ci li gën a yokk a tax ma la daan topp ci émission muy fexe ba ku jigéen ki bëgg ku góor ki wala fexe ba ku góor bëgg ku jigéen ki ba lu mu ko wax mu def ko lu mu ko digal mu def ko fu mu jëm yóbbu ko lu mu xam wax ko dégg naa boo boolee góor ak jigéen kenn mëntu leen tàqale. loolu nga wax lu wér la sëñ dégg ndax wàllum nopp bu ma sañoon sax nit ki ma ciy jëflanteen mm-hmm. nit lay doon koo xam ne day mel ni fu ne wër na fa ba yàlla boole koog man ndax bu dee wàll woowu képp kum tax a ñëw muy sa yitte loolu boo dégganteek man bu lay boo amee sens su jotanteeg man waxtu wuñ déggantee nara leen aajo jooju faju na xanaa jeneen aajo lay doon waaye aajo jooju booy kuppeeg man ci kàttanu yàlla ci kaw ñi déggoo ca nag insha allahu rabbi aajo jooju suñ borom dana ko faj xànjar bi suñ dégg alliwa jaa ngi nii alliway xànjar jaa ngi nii lii mooy dox ci wàllum noob mhm. képp koo xamante ni maanaam am nga loo bëgg nooblu muy xam dox ci diggante mhm. góor ak jigéen mhm. nga bëgg koo nooblu waaye nag boo may noobloo jigéen nay leer ndax man li may def bu ma ko xasee def ba pare man mi ko defoon sax dindi ko damay të kon lu may def day leer uh-huh. du ma noob ñaar nit ñu ànd di mooy yàlla de ndax uh-huh. bàkkaar boobu man du ci dugg nit ñuy ànd di mooy yàlla loolu du ma ko noob ndax bàkkaar boobu duma ci dugg waaye bu ma leeree ne. te muy doon wax ju dëgg. li ngay wax yitteel na la. Mhm. ci diirub juróom-ñaari fan sa aajo faju alliwa jaa ngi nii. liggéey bi kay moom. Uh-huh. lii ci mag laa ko donnoo. Uh-huh. liggéey bu wér a wér a la man yoruma bagage gone. déedéet mhm. li may yor mhm. lu wér a wér la. Uh-huh. te ndimbalu yàlla dëgg mooy tax jàmm am ci. ndax man xawma ma aajo bu dut faju man xaw ma ko. man li ma xam ñaan buñ ci déggoo lépp lu mu waxanteeg yow ci kàttanu yàlla ak mbaaxam sa ajo day faju insha allahu rabbi yi euh, sëñ Abdou Khadir al imam tey dama gis tamit wàllu ñaan yàlla côté bi la ci yàlla may bëri na mais tey point yi ma bëgg ñu waxtaan ci bëriwul kànnaar damay gis suñ mbokk soose yi di ko liggéey nga ne man kànnaar li ma ciy def doo dox ba teg ko bët fenn nga ne ma ki ma ko jàngaloon faatu na te ba muy faatu am na téeméeri at ak lu ëppal nga ne ma secret bi may def ci kànnaar nettali nag ci làmmiñu borom la dàqee kànnaar bii lan ak nga ci liggéey. ndeysaan bi nga tuddee kànnaar sama yaram dafa daw. ndax góor gu ñaan Alaaji Sëbel Ba. moo ma ci moo ma joxoon secret bi doonoon sama taalibeeb maam. di borom xam bu wér wér wér bi muy faatu am na cent onze ans doonoon sama taalibeeb maam moo ma joxoon secret kànnaar bi kànnaar bi bépp yitte bu waaye am ci doomu aadama man nag yitte bu man di doon la bàyyiwut benn. boo ko amoon ci président de la république rek sax laa wax nga jokkoo ak man kànnaar bi bu ma ko ci tëjee sa yitte faju ku mu mën a doon nag képp ku yor bakkan di nooyi laa wax ma ci kànnaar bi ak yi ji lu mu rëy rëy rëy fexe la jokkoo man bu ma ko tëjee ci kànnaar bi sa aaju faju insha allahu rabbi loolu moom awma ci sikk boo soxlaa ci nit rek da ngay tijji rek wax ko daal tëj kànnaar bi bu ma la ko defalee nga soxla ci nit kànnaar bi mën naa jàpp juróom nit bu ma la ko defaree dama la koy jox boo soxlaa ci nit da ngay tijji kànnaar mu tijjeeku la nga soxla ci moom nga wax ko tëj insha allahu rabbi balaa mat juróom-ñaari waxtu mm-hmm. la nga soxla ci moom dana la fekk fa nga ne wala boo ko wooyee uh-huh. booy addu mu la koy jox awma ci sëkki sàkka ay so numéro téléphone sëñ Abdou Khadir ay imam mi ngi doon affiché ñu fekk fi ci dëkk bii di euh, Touba sëñ bi dama dégg ñu ne ma ke ko wax tamit borom xam-xam la te ci dëkk bi la jàngee ci dëkk bi la màggee moom it xalifa baayam la maa ngi koy nuyu daf maa ñaan ne ma tudd sama tur waaye maa ngi koy jaare baax a baax a ko déggee dina xam ne moom lay waxal mu ne ma am na cangat goo xamante ni yaa koy sang doomu aadama ki gën a ñàkk ci àdduna boo ko sangoon wërsëg yomb ko ki gën a umu ci àdduna boo ko sangoon yàlla dindi umu ci moom gàllaj googu bëgg naa tey nga ko càngat googu jërëjëf sëñ boobu nga wax léegi maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax bu dee gàllaaju cangat googu loolu taal naa ci ay nit ñi doon ay milliardaires te nit ñuñ xeeboon lañ ñi bokkoon ci seeni famille ñi xeeboon leen lool waaye yàlla miy dogal dogal na ci sama jëmm ji lañuy ñu jaare ba doon liñ doon tey bañ mën leen a tudd bari na ci ñu bari ñu ma ci mën a tudd ndax kilifa googu nga wax seede la ci képp koo xamante ni yàlla daa dogal ngay liggéey moo xam nga ne ci réew mi moo xam nga ne bitim réew di wut dara suñ boroom dogal sa mbir dëgër fexee la jokkook Cheikh Abdoul Khader mii mhm. càngat gii ma lay jox fukki fan ak benn nga koy sangoo mhm. insha allahu rabbi boo ko sangoo mhm. bala ngaa toog juróom-ñaari fan boo doon liggéey booy wut wala xaalis booy yoot wala bunt yooyu fëgg wallahi xasim suñ borom dana ubbi say bunt ba nga jàpp ne mosoo jaar ci benn jafe-jafe suñ borom dana ubbi say buntu ba nga jaar ci ba nga xam ne da ngay jàpp yow sa jàpp ne mosoo am ci benn jafe-jafe mosoo cee jaar loolu moom sëñ dégg awuma ci sekki sàkk. mu dégg ne gàllaaju yaa ngi ciy joxe butéel boo xamante ni butéel bi am na sax ñu ko doon di ko teppi di ci taf seen i ba leen woowee tëkku leen ci baatin ci lañ ko bàyyi parce que eh, ku la xam du la ñemee ñi nga jàngal lasraar ñu génn jàngale bëri na te sëriñ su bëree bëree bëree bëri koo la al Abdou Khadre al imam mais butéel bi dégg naa butéel bi bu nit ki jëlee day sëy kattan gi muy yor mooy kattan gi nga xamante ni moom la judduwaale woon. day am doole day am force te lépp seen naturel butéel bi bëgg naa nga ñëw da koy sax faral di maske waa sëñ dégg li nga wax daa am solo. ndax bu ma déggee nit di jàmbat wàllum kàttan sax. di wax ne jaar na ci fu ne loolu dafa may jaaxal. waaye nag damay xam ne. loola xam-xam ñu koy tuddoo dañoo bari te amuñu ko. waaye butéel bii ku yàlla dogal. nga war cee am ba ma jox la ko. bu dee wàllum kàttan néewu kàttan. Uhuh. moo xam booy sëy. di gaaw a daanu. Uhuh. wala moo xam nga tële. Mm-hmm. moo xam tële boo xam daf laa dab. Mm-hmm. wala moo xamante ni des la koo def. Mm-hmm. incha allahu rabbi biteel bi bu ma la ko joxee. ci juróom ñaari fan nga koy jëfandikoo. boo ko jëfandikoo ñetti fan. bu la neexee man ngaa teg biteel bi. boo amee koo koy ngay may nga may ko ko loolu maa la ko garanteel. ba ba ngay faatu. Uh-huh. wàllum kàttan dootoo tàggook moom. kon lii xanaa traitement la. lii sëñ dégg. li ci ne ci biir du jar ñu koy leeral. waaye li ma la wax. boo ko jëfandikoo ñetti fan. boo amee koo koy may bu la neexee nga may ko ko ba ba ngay faatu dootoo tàggantoog wàllum kattan dootoo tàggooteeg moom te bu nekkee ci yow ci néew kattan di sëy di gaaw a daanu ak tële tële ci jëmmam da koy faj ndax lii maa ne waxal ne juróom-ñaar fukki mbir ak ñeent moo ci daje waaw dama nga am koy waxal téléphone ne ko li des ak dund boo laalee sunguf soosu mbindeef mënatu laa liggéey ba jàpp la kon am na loo xamante ni boo ko nit ki laalee kenn du ko jàpp ci gàllaaj loolu lu wér a wér la ndax maa ngi sunguf soo xamante nii ndax sañ dégg man damaa yor xam-xami mag ndax xam-xam yi ci mag ñi ma ko jëlee ñu ci bari samay taalibe maam lañ woon te façon làkkat bu ne daa jébbul woon ci sama maam la waraloon loola mooy xam-xam bu nekkoon ci sama maam moo taxoon làkkat yooyu yëpp jébbul woon si moom te lam leen wanoon mooy xam-xam te la daje woon ci sama maam ak daje woon ci magi taalibe yooyu suñ borom daa dogal lépp daje ci man mii kon moo tax ma ne la sunguf. ak reen. loolu suñ borom dama cee may. ak alxuraan ji nga xam ne nag dañu ko jàng ba saytu ko. bu dee mbirum baatin tamit dañ koo donn moom ci lu wér wér. suñ dégg maa ngi wax ne man nit bu ma wooyee téléphone. sama nopp yi bu ma ko ci am na ci boo xam ne bu ma ko ci wuyoo. du jar ma koy seetal. bu ma koy wuyu daanaka li ne ci moom léegi mën naa koo wax. ci lu wér a wér a wér. ndax man sëñ Abdou Khadir Mbacke mu sëñ Tuubaa moo ma tudd tudde ma boppam. <laughs> man du ma gone de. te du ma doomi gone. alhamdulilah bi euh, bala maa ñëw ak yow ci fas gi nga xamante ni yore nga ko mu nekk fas goo xamante ni fasu kóllëre la te yaakaar naa euh, lu bala maa dugg ci domaine boobu sax damay ñëw ak yow ci li ñu fi gën a andi muy élection yi danga ne ma xam naa koy falu xam naa li muy faloo xam naa li muy def ba falu te du ku nekk ay falu lii nag yaakaar naa wax la ci biir wax yi. loolu nga wax lu wér la ndax élection yi. Mm-hmm. yaakaar naa ne am na ñu bari ñu daan ñëw ci man di toog ak man di bàyyi ko dëkk boobu ñu naan saw di wax si ci man ay yitte ñu ci bari ña doon wut ay parrainage am na ci ñoo xam ne dama leen waxoon ne leen bu leen sonn du ngeen jàll ci élection yi te dañ leen di téye te ñooñu buñ déggee lii may wax xam nañ ko. 4 di du matin dañ daan ñëw jóge seen dakaar di ñëw di toog man ba 4 di du matin ñiy waxtaan yu ci baree bari ma koy jëflanteeg ñoom élection yii di ñëw mbir dana ci xew. sëñ dëgg li ma leen di wax lu wér la élection yi di xew mhm. mbir dana ci xew mu rëy rëy rëy mhm. te lii maa leen ko wax te maa ngi bàyyiloo xel nag nit ñi nañ jóg ci seen njaboot yi mhm. ndax réew mi dana yëngu te deret ji dana bari dana bari waaw nga ne ma gerte kemb gi suñu mbokk yi yi di defee li nga xamante moom mooy euh, euh, noflaay ñii di ko defee li nga xam mooy mbaxalu gerte nga ne man dama ci yor secret boo xamante nii soo ko lekkee mbooleem jàngoro bu nekkoon sa yaram day dañ sëñ bi euh, jël gerte gi nga am loo askan wi. xam naa lii moom li ngeen koy gis bariwut moom. wala jàpp naa ne liñ koy gis. ci man lañ koy gisee. gerte gii ngeen di gis. li ma lay wax ne la damaa doon xam-xamu mag. doon doomi mag bàyyi koo ci ay walliw. gerte gii juróom-ñaari doom yi. am na kii bu sekkare bu ma koy booleel. lenn li sunguf la lenn li alxuraan la. bu ma la ko joxee boo ko jëfandikoo mbooleem lépp lu nekkoon ci yow ci ab liggéey ak jëf yi bon ak ay takk ak ay fas wallahi la xasim boo ko jëfandikoo mhm. ci sensé da ngay tàggali ko ak moom te ci ñetti fan nga koy jëfandikoo day génn ci yow ba set wicc donte dañu laa takk mhm. wala ñu liggéey la mhm. wala ñu def la nopp bu bon da ngay tàggali ko moom ba set wicc ci gerte gi laa koy liggéeyee gii ci laa koy liggéeyee asu numéro yaa ngi noonu képp ku ci woote rek di nga jot sëriñ bi sëriñ bi ñu ñëw ci fas gi nga xamante ni mi ngi tukkal àdduna lu ko gën a gaaw ci papier man gisuma ko parce que maa fekkee la tubaab bëgg maa xam nit mu ñëw fii nga liggéey fas gi mu dem déposé ñu may ko ñii tàndu nag bëri na ma xamaat nit mu nekk bitim réew nga takk fas gi ay këyitam génn lii preuve yaakaar naa defati nga ko ci. waaw sëriñ bi fas gi moo nekk nii moom na ko ñëpp gis fas gii moom bu ma ko yëkkatee sax sama xel day dal. ndax ndimbal lekk la ndax góor gi ma ko joxoon di bi ma koy jox mu ngi téeméeri at ak fukk ak benn ci la nelawee ci weer yu mujj yi la ma ko jox te fu ne la nit daan bàyyi ko di rang ci moom ngir am ko suñ borom dogal nag xam-xam boobu mujj ci man ci ay njabootam kenn yoru ko ci yàlla dogal na ci man la mujj képp koo xamante ni lii nag li ko tax a jóg mbir mu ñuul la li ko tax a jóg képp koo xamante ni yàlla daa dogal ngay wuti ay kayit ci nasaraan si di ko wuti wala nga am loo bëgg ci ñoom fas gi bés ko ci fasee insha allahu rabbi booy dem la ngay booy dem la la tax a jóg booy àgg ñi la koy may te bu ñu ko fasalee nag na nga ñu dimbali ba sa aajo bu fajoo mm-hmm. bul bég ba bañ ñoo woo ndax boo ñu wowut boo ñu wowut mm-hmm. da leen di lor mm-hmm. fexeel ba wooñu ñi mën koo fecciwaat mm. ndax buñ ko fecciwut de dañuy am ay jafe-jafe. maanaam boo ko fasalee nit ki bu déposé ba pare bu fekkee ay këyitam génn na daf lay woo nga fecc fas gi. bul wax bu fekkee ay këyitam day génn dégg. Ah këyit yi day dégg laa day génn laa wax. moo tax bu këyit yi génnee. dañuy woowaat. Uh-huh. ñi feccil ko ko. Uh-huh. ndax ñu nit bëgguñoo lor nit. Uh-huh. waaye képp koo xamante ni nag. am nga këyit yu la të. foo mën a jaar nag foofu yaa yaa xam ña nga fa jaar. waaye boo ëgsee ci man. ma ma fajal la ajo jooje ci lii. ma fajal la aajo jooje ci lii. incha allahu rabbi ah, du ñu temps parce que amoo temps te coup d'état ki xam sa temps kon sëñ bi dañuy bàyyi nga tàkkatoo askan wi lay suivre ci improtive yi jërë ngeen jëf. yéen it maa ngi leen di santaat bu baax a baax. te di leen jéglu bu baax ci coono yi ngeen daj ba agsi fii ci man. yàgg ngeen ma bëgg toog jataay ak man mm-hmm. waaye ñàkk jot gi ni nga ko waxee léegi rek ak mm-hmm. tënku gi mm-hmm. ak kilifa gi li mu ñu bàyyee mu ne ci suñu loxo ñi di ko saytu loolu rek moo ñu xawoon a tënk waaye maa ngi leen di jégluwaat baax tey nuyuwaat ñëpp tey sant ñëpp tey gërëm ñëpp tey ñaanal yàlla fépp fu waay ne te du ñu seetaan ñoo ngi ñaan bu yàlla nammee sa aajo faju yàlla nga dégganteeg ñun bu yàlla dogalee sa aajo wërtu fajo ci ñun yàlla boo ñu seetaan yàlla boo ñu dégg te biir na ma ne képp ku dégganteeg man wallahi alxasim sa aajo dana faju incha allahu rabbi sëñ Abdou Khadre al imam la ñu fekk si woon tey ci dëkk bu sell bi di Touba doon def ak moom yaatal waaye doon def ak moom waxtaan wu bëri njariñ muy borom xam-xam di kilifa gu yàlla baaxal di borom baatin di xalifa euh, baayam mbokk yi lii rek ci rek la nekk muy faj aajooy jaam yi fas takk xànc ak alxuraan yaakaar naa lii bokk na ci li ñu koy euh, bàkkee si Abdou Khadre al imam numéro yaa ngi doon affiché képp ku ko ci woo rek ko jot yéen ñi doon topp di ñu suivre ci MPROD TV yàlla ngeen bëri jàmm ci darajay Muhammad Rasulullah